man maa di alquraan géej laa ku ñëw danga naan sama yiw wi day baawaan bu ma seetlu gis ilimaan waaye baax na comme ci al la ñuy waxtaan ak di ko seetlu ñu xool li nga xam ne alquraan wax nañu ko ci xew-xew bi loo xamante ni moom moo ko sabab wala ci li ko yàlla jaarale ba digal ñu ñu koy baaxantal fa bi gulaamin haliim léegi nag doom juddu na fekk mu am 86 ans muy juróom-ñett fukki at ak juróom-benn léegi ndax mbëggeel gi mu am ci xale bi ak cofeel gi mu am ci xale bi dafa nar a tolloog mbëggeelam ak cofeelam ci yàlla wala ndax daf ko war a weesu. léegi bu ñu seetloo ni nga xamante ne noonu la suñu borom subhanahu wa taala nettalee xew-xew bi li ci njëkk mooy yàlla mayu ko doom doom ji judd rek mu ne na ko rey ndax loolu doon na gën a yomb ci moom waaye ngir nattu Ibrahim yàlla da ko bàyyi ba mu miinanteeg xale bi ba xale bi dem ba commencé dëgër nga xamante ni commencé na am ci moom yaakaar commencé na gis màggam commencé di ànd ak moom fu nekk fu mu jëm ànd ak moom nga xam ne loolu sac la loolu tiitër la ci mag moo xamante ni mënoo woon am doom ci jamono jooju ñu ne la nag rayal sa doom sa borom ne la rey fanzur maada tara Ibrahim ñëw ci doom dina ko yaa bunayya mu jëfandikoo baat boo xam ne baatu ñeewent la ci ni mu ko woowee di wane affection bi nga xam ne am na ko ci doomam kon mi ngi koy waaja def mbir waaye du soxor du bañ ko ku ko bëgg la li koy firndeel rek mooy ni muy ni mu koy woowee ak ni muy waxee ak moom beneen mbir bi ci des mooy respect bi am ci doom ji respect bu toll ne bi ko yàlla santee mbir mu war koo def neewul rek lu ma yàlla sant la dëgg la sama droit la naa ko def mais dafa ñëw waxtaan ci ak doomam li muy nekk nekk xale mu ne inni ara fil manaami anni adbahuka damay gis waxul ne damaa gis mais damay gis mu mel na kon loolu takkaraar la ci jublu mooy loo xam dafay répété wu di am di amaat dafay fa damay faral di dikkal su may nelaw may gis yàlla di ma wax ne ma sa doom ji na ko rendi na nga ko rey ngir jaamoo ko yàlla ci bis bi nga xamante ni mooy bisu tabaski léegi nag fanzur maa daa tara wax ji ko Ismaayila wax na ko yaa abati faal ma tu'mar defal liñ de sant dañ ciy déggee tamit ne Ismaayila comprendre na Ibrahim lii muy def fan la ko teg loolu kon tamit dañ ciy déggee ne éducateur léeg-léeg baax na ki ngay yar nga koy wax li nga koy tere wala nga ko koy digal lan moo tax pour mu comprendre ko ndax léeg-léeg ñàkk comprendre jëf bi ngay def li tax nga koy def dina tax nit ki du ko mën a accepter mais bu fekkee comprendre na li tax nga koy def da gën a yomb ci moom accepté ko ndax def na ko defal liñ la sant kon xam na ne yàlla moo ko ko sant loolu moo tax kon compréhension boobu nekk lu am am solo mu daal di ci teg ne sa tajidu nii insha allah min assabirin di nga ma fekk ma bokk insha allah mu nekk lu am solo mooy ne nit ki looy wax ci loo xam ne day ñëw ci sa mbir del wax bu soobee yàlla incha allah résultat bu baax rek nga ciy am. falamma aslama wa tallahu lil jabin. salaf daf ko wax ne ko na ko dëpp ndax mu bañ a jàkkaarloog kanamam di ko yërëm moom itam mu bañ a gis jàkkaarloog baayam buy tudd yàlla di rey loolu tiital ko ba tax mu mën a dellu ginnaaw. ci lañ wax ne wa tallahu lil jabin tallahu lil jabin mooy akabbahu ala wajhihi ñenn ci borom koo xam ne ku mel ne Abdullah ibn Abbas dañ doon wax ne daf koo dëpp dëpp kanamam xam nga ne position boobu pour rendi ci dina xaw a jafe allahuma dul nga jël paaka bi jaarale ko ci suuf dina xaw a jafe waaye loolu na ko yàlla waxee falamma aslama wa tallahu lil jabin mu daal di koy dëpp yenn ci borom xam wax ne wa tallahu lil jabin daf ko daal di tëral tëral ko ci wetu càmmoñam jubal jubal ko li nga xamante ni moom mooy xibla ci borom dañuy wax ne isma ibrahim jot naa dawal paaka bi ci baatu ismail yàlla def ko mu nekk mu nekk përëm boo xamante ni paaka bi mënu koo dagg mooy ne laata muy rey la ko yàlla subhanahu wa taala woo xamal ko ne ko dëggal na li nga xamante ni moo nekkoon ci digganteem ak boroomam ñu daal di koy jox xar gàtt boo xamante ni bi moom la dem jël ko daal di koy rey ci place Ibrahima Ismaïl yenn xeetu xar yi nga xam ne moom lañuy jënd léegi xewal ko mooy xar yu duuf yi moom tamit dese naa mucc ayib ndax naam baax na ci jëm ji ni mu toll mais dañu leen di engraisser xar yi duñu dox du def benn effort physique dañuy daanaka tëju atum lëmm ci benn néeg ñu leen di xont te duñ leen jox daanaka ngooñ xar normalement ay ngooñ ak ay ñax la war a lekk waaye léegi comme li ma doon wax ci industrie pharmaceutique bi dañuy jàpp xar yi di leen jox ay mboq ak ay ay ay ay basi yu mel noon lañ leen di jox pour bëgg ñu gaaw a am ma centre Darou Salam di yëngatu ci médecine islamique ak bu traditionnel ñoo leen di baaxe seen émission seetlu alquran alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alhakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci suñu jataay bi nga xam ne ñoo ko bokk ak yéen muy jataayu seetlu al quran suñu jataayu tey bi ñu koy jëmale ci wàllu xew-xew bi nga xam ne ñu ngi ko jublu muy tabaski di xew-xew bu mag boo xam ne yàlla subhanahu wa taala daf ñu ko jagleel ñun xeetu lislaam ne li kulli ummatin jaalna mansakan hum naasikuuhum yàlla wax ne xeet bu nekk yàlla defal na leen xew-xew boo xamante ni dañ cay dem di ca jaamu yàlla di ca màggal yàlla subhaanahu wa taala yàlla defal ñu ñun xeetu lislaam suñu xew-xew boobu daje ak tamit jaamu gu mag bu ñuy jaamu yàlla muy aj gi nga xam ne ci la ñuy néegu borom bi subhaanahu wa taala muy baytullahi alxaram ñun yàlla defal ñu xew bi nga xamante ni moom la ñu jub si mu tombe ak xew-xew ak aj gi nga xamante nañ koy aj ci néegu yàlla bi subhaanahu wa taala kon jaamu yàlla la goo xam ne jaamu yàlla gu màgg la yàlla yoonal ñu ko ci weer wi ñu nekk di dul xijja ci fukkeelu fan bi fukki fan yi nga xamante ne bi moom moo mooy yu njëkk yi ci dul xijja di juróom-ñeenti fan yi ko jiitu bokk ci fan yi nga xam ne moo gën a màgg ci àdduna di fan yoo xam ne ñaax nañ jullit bi bu ci nekkee muy def lu baax di jaamu yàlla subhanahu wa taala di góorgóorlu ci lu baax ndax lu baax la ci nit kii def yàlla daf koy ful yàlla daf ko ci fay yool boo xam ne yool bu rëy rëy la yool bu màgg la waaye baax na comme ci alquran la ñuy waxtaan ak di ko seetlu ñu xool li nga xam ne alquran wax nañu ko ci xew-xew bi loo xamante ni moom moo ko sabab walla ci li ko yàlla jaarale ba digal ñu ñu koy baaxantal di ci jaamu yàlla ak bu jot di ci tuur deret fan la mbir mi tàmbalee fi mbir mi tàmbalee mooy suñu maam Ibrahim alayhi salaam mi nga xamante ni bi yàlla subhanahu wa taala dafa digal yonantu bi alayhi salatu wasalaam ne ko an ittabi millata ibrahima xanifan toppal diine ki samaam ibrahim diine sa baay ibrahim muy diine joo xam ne wéetal yàlla subhanahu wa ci la tegu ak sori lépp loo xam ne bokkaale la ibrahim alayhi salaam dafa dem ba am lu ëpp quatre-vingts ans muy juróom-ñett fukki at amul doom soxnaam si nga xamante ne mooy Haajar mënta am doom ak moom ñu jox ko jébbal ko ab janq boo xam ne dañ ko ko may soxnaam daal di koy digal na ko na ko jël def ko soxna Haajar ci boppam digal ko ko muy Saara amaana yàlla subhanahu wa taala may ko ci gone mu daal di jël Saara bi ko jëlee yàlla subhanahu wa may ko ci gone gone googu du Ismaayil mooy li yàlla wax ne fa basharnaahu bi gulaamin xalim yàlla subhanahu wa taala jox ko gone gone googu du Ibrahim di di Ismaayil ndax yàlla ndax ci tàmbali bi ci sortu Safaat ci xew-xew bi ni ko yàlla waxee. ibrahim dafa ñaan yàlla ne rabbi habli min as-salihin may ma njaboot goo xamante ne njaboot bu baax lañ may ma doom yoo xam ne doom yu baax lañ maanaam ñaanul yàlla rek doom ndax objectif am nekkul woon rek am doom ak nu mu ko amee baax na waaye dafa ñaan yàlla bu ko yàlla di may mu may ko doom boo xamante ne doom bu baax la yàlla subhanahu wa taala daal di koy bégal ne ko dina ko may doom wax ne ko doom jooju ku baax lay doon mu melal ko melokaanu xalim borom xel mu rafet lay doon ku yiw lay doon bi mu amee doom jooju doom ji juddu màgg dem ba dëgër ba nga xamante ni bi commencé na di ànd ak baayam di dox di ànd ak moom di dox ci ay soxlaam nga xam ne fierté la kontaante la fekk nag am na lu doxoon diggante Ibrahim ak boroomam li doxoon diggante Ibrahim ak boroomam mooy li yàlla waxoon ne wattaxada allahu Ibrahima xalila mooy Ibrahim dafa xaritoo woon ak yàlla yàlla dafa defoon Ibrahim xaritam te ñun doomu aadama xarit benn lañ ci mën a am ndax mooy koo xam ne dangay jël sa xol lépp jox ko ko am ci moom cofeel koo xamante ni leneen du àgg ci yow fu toll noonu Ibrahim noonu la meloon ci digganteem ak boromam mooy jëloon na xolam kon lépp jox ko yàlla yàlla moom mën na am lu benn xarit ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na inna allaha attaxadani xalilan kama attaxada ibrahima xalila yàlla def na ma xarit comme ni mu defee Ibrahim xarit waaye ñun doom ñun doomu aadama benn xarit lañ mën a am kon cofeelam fu muy àgg ci yow leneen du fa àgg ci yow Ibrahim noonu la meloon ci digganteem ak boroomam léegi nag doom juddu na fekk mu am 86 ans muy juróom-ñett fukki at ak juróom-benn léegi ndax mbëggeel gi mu am ci xale bi ak cofeel gi mu am ci xale bi dafa nar a tolloog mbëggeelam ak cofeelam ci yàlla wala ndax daf ko war a weesu. faw yàlla nattu ko ngir Ibrahim prouvé dëggal ne mbëggeelam ci yàlla dara tolul ne moom léegi nag foofu la ko yàlla subhanahu wa taala nattoo moo tax ci njeexital ba borom bi subhanahu wa taala tuddee ko balaa mubin ne inna hada la huwa al balaa'ul mubin muy kon nattu éprouvé bu ko yàlla éprouvé boo xamante ne bu màgg la naka la ko yàlla nattoo yàlla dafa wax ne fa lamma balaga maahu saaya ba nga xamante ne bi Ismaïl te loolu amaana moo gën a dëgër ci li ñu wax ndax am na uute bu am ci diggante borom xam-xam yi depuis ci jamono saxaaba yi kan mooy ki nga xam ne moom la yàlla digaloon Ibrahima mu rey ko ñenn suñu wax ne Isxaaqa la ndax Isxaaqa moom la ko yàlla bégal ci alquran léegi du Ibrahim fa basharnaahu bi Isxaaqa wa min waraai Isxaaqa Yaaqub yàlla Ibrahim bégal yi mu ko bégal doom ci alquran Isxaaqa la kon bi mu waxee ne fa basharnaahu bi gulaamin xalim fa lamma balaga maahu saaya qaala ya bunaya ñoom ñu ne kon foofu isxaqa la loolu ku mel ne abdullah ibne abbas al abbas abdullahi ibne masud ali kaab ñoom ñëpp loolu lañ wax nee nañ isxaqa la alimaam ibnu jarir ak tabari loolu la dëgëral waaye li gën a dëgër wallahu alam bu fekkee seetlu nga siyaaqu aaya yi ni ñu tëddee di nga gis ne fii ismail la ko yàlla digal mu rey ko ndax bi ko bi mu waxee yàlla rabbi habli min asalihin fa basharnaahu bi walaa gulaamin halim yàlla foofu dafa tudd doom ju ko yàlla bégal nga xam ne moo njëkk a juddu yàlla ni ko naray rey doom jooju ci njeexital bi bi mu demee ci mujjantal bi mu waxee ne salaamun ala ibrahim bi mu demaati foofu def ne fa basharnaahu bi ishaqa nabiyan min asalihin mu soog a waxaat foofu bi bi xew-xew bi jàllee mu wax ne fa basharnaahu bi ishaqa nabiyan min asalihin mu mu ne yàlla ne ñu daal di koy bëggalee ishaqa ginnaaw bi loolu jàllee mu nar a nekk ab yonent nekk ci ñu baax nii am na ci borom xam yi nga xam ne wax ne isxaqa la dañ ne ñaareelu bégal boobu du juddu isxaqa waaye def ba ko yàlla di def ab yonent la waaye loolu des naa dëppoog ni alquran waxee ndax alquran ni mu waxee ci mbiru isxaq bi ko suñu borom di dig ibrahim di wax ne doomam jë soxnaam si nga xamante ni bii moom mooy haajar dina am gone gone googu yàlla xamaloon na ko ni bu juddoo dina nekk yonent daf koo bégalee ci bi mu waxee ne fa basharnaahu bi xulaamin xalim ne ko isxaqa dina judd ba isxaqa juddu ba nekk mag ba dëgër mu koy soog a wax ne ko day nekk ab yonent loolu dese naa dëgër loolu kon li muy wane mooy ñaari bégle yi bokkul bégle bu njëkk bi ismaila la mi ngi juddu fekk ibrahim mi ngi am juróom ñetti fukki ak juróom benn bi mu judd fekk ibrahim mi ngi am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent te itam gone gi nga xamante ni moom la ko wax ne ko na ko rey fa nga xamante ni fa la ko waroon a reye di Makka di Mina foofa Ismaïl moo fa nekkoon fa nekku fa woon ndax Ibrahim mi ngi woon Cham mi ngi woon Palestine bi mu jëlee Ismaïl ak ndeyam di Saara yóbbu leen Makka boromam digal ko mu dem yóbbu leen foofu ñu dem sàmp fa diine ji nga xamante ni bii mooy diine wu yonent bi bi nar a mujjee ñëw bokk ci sëti Ismaïl yonent boobu bu ñëwee Kaaba googu nga xam ni yàlla aaroon na ko wala boog yàlla aar na ko ci sax ay yéefar yoo xamante ni bii ci ahlu kitaab lañ bokkoon nar nar a ñëw toj ko yàlla aar ko sàmm ko li tax loolu mooy dafa am ab yonent boo xamante ni dina ñëw ci mujj jamono bokk ci sëti Ismaïl bu ñëwee Kaaba googu day symboliser diineem ci la dem installé wu foofu moom ak ndeyam kon yonent bi nga xamante ni wala boog gone gi nga xamante ni moom la Ibrahim waroon a rey ca bërëb yooya li gën a dëgër mooy ismaila la donte am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne isxaqa la loolu xew-xew boobu ni mu demee mooy ibrahim dafa ñëw daal di koy wax ne ko yaa bunayya inni ara fil maanaam fil manaami anni asbahuka fanzur maada tara léegi bu ñu seetloo ni nga xamante ne noonu la suñu borom subhanahu wa taala nettalee xew-xew bi li fi njëkk mooy yàlla mayu ko doom doom ju juddu rek mu ne ko na ko rey ndax loolu doon na gën a yomb ci moom waaye ngir nattu Ibrahim yàlla da ko bàyyi ba miinanteeg xale bi ba xale bi dem ba commencé dëgër nga xamante ni commencé na am ci moom yaakaar commencé na gis màggam commencé di ànd ak moom fu nekk fu mu jëm ànd ak moom nga xam ne loolu sac la loolu tiitër la mag moo xamante ni mënoo woon am doom ci jamono jooju ñu ne la nag rayal sa doom sa borom ne la rey loolu moom moo gën a metti nga gis ne kon nattu bi foofu la nekk loolu mooy li njëkk mooy koo xam ne dafa jafe woon ci moom mu am doom dem ba nekk mag am doom nga xam ne daanaka doo ko gëmee ñaareel bi mooy dem ba xale bi commencé dëgër ba miinante ak yow ngay ànd ak moom di dox say soxla ñu ne la rey ko kan moo la ko digal sa borom naka la ko ko yàlla digalee ci gis nelaw la ko gisee yonent yi seen nelaw wax yu la yàlla moo leen ci wan ay mbir mu nekk wax yu nekk lu leen yàlla di xamal ndax ñoom seen i xol daawul nelaw seen i bët moo daan nelaw comme na ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxee seen i bët moo daan nelaw mais seen xol du nelaw loolu moo tax li ñuy gis du jóge ci seytaane ci yàlla rek lay jóge comme nag ñeneen keneen ku dul ñoom li ngay gis day jóge ci yàlla di jóge ci seytaane di jóge ci sam xel li ngay gis soo nelawee du mën a nekk wax yu mënoo dogu ne ci yàlla la jóge kon yonent yi li ñu daan gis bu ñu tëddee ci seen borom lay jóge moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam laata jibril di ko dikkal comme ni mu ñëwee ci xadis ba li mu njëkk a di gis ci wàllu wax yu ci nelaw la ko daan gis lu mu mës a gis rek bu tëddee bu yeewoo gis mu réalisé wu Ibrahim ñëw ci doom dina ko yaa bunayya mu jëfandikoo baat boo xam ne baatu ñeewant la ci ni mu ko woowee di wane affection bi nga xam ne am na ko ci doomam kon mi ngi koy waaja def mbir waaye du soxor du bañ ko ku ko bëgg la li koy firndeel rek mooy ni muy ni mu koy woowee ak ni muy waxee ak moom beneen mbir bi ci des mooy respe bi am ci doom ji respect bu toll ne bi ko yàlla santee mbir mu war koo def neewul rek lu ma yàlla sant la dëgg la sama droit la naa ko def mais dafa ñëw waxtaan ci ak doomam li muy nekk nekk xale mu ne inni ara fil manaami anni azbahuka damay gis waxul ne damaa gis mais damay gis mu mel ne kon loolu takkaraar la ci jublu mooy loo xam dafay répété wu di am di amaat dafay fa damay faral di dikkal su may nelaw may gis yàlla di ma wax ne ma sa doom ji nangu ko rendi na nga ko rey ngir jaamoo ko yàlla ci bis bi nga xamante ni mooy bisu tabaski léegi nag fandur maa daa léegi foofu am na xëy na tekkin ak njàngin yu wute ci maada tara ji ci maada tara ak maada turi waaye li wér mooy xoolal lan nga gis ci mbir moomu lan nga jàpp ne loolu nga war a def ci mbir moom wala boog loolu lañu ñu war a def ci mbir moom mooy kon laaj na ko ci xalaatam laaj ko ci xelam pour lan lay wax ci loolu lan la ko Ismaayil wax def na ko yaa abati faal ma tuhmar mu jëfandikoo tamit yaa abati di boo xam ne woowin boo xam ne woowinu wegeel la waaye woowin woowinu tamit cofeel la ci digganteem ak baayam yow saa baay yow sama baay defal liñ la digal foofu tamit ñu fay déggee mbir yu am solo bu ci njëkk mooy Ibra Ismaïl li muy nekk nekk gone terew koo am xel mu rafet comme li yàlla waxoon ne wala min xalim xel mu rafet terew koo am jom di wane ne kon ndakate xale buñ ko yaree mën naa def ay jaloore loolu wute torop ak suñu jamono ji nga xam dañoo jàpp ne droit wa droit des enfants mooy xale yi bàyyi leen ci lu leen neex loolu irresponsabilité wu mag ñi la ndax xale bu ñu ñëw du ñu indaale xel mu rafet du ñu indaale xel ak maturité bu leen wan ñu xam lan mooy yoon wu baax ak lu baax li nga xam moom la ñu war a def kon ni leen mag ñi di tàggatee di leen jàppale ci seen jëmm ba ñu mën di jëfandikoo seen yaram am psychomotricité bu baax noonu tamit lañ leen war a jàppale ci seen i xel bañ am xel mu rafet am xalaatin bu rafet te loolu yar moo ko mën a def éducation moo ko mën a def pour inculquer leen ay valeur waaye Ismaïl boo gisee ni mu tontoo baayam nga xam ne xale bu ñu yar kon xale bu ñu ko yaree mu def ay jaloore waaye bokk na ci yar xale tamit respecté ko ba du rek damay ñëw chaque fois di la imposer waaye di waxtaan ak yow ndax consulter bi mu ko consulter laaj ko xalaatam non seulement dina gën a encourager Ismaïl mais dina tax tamit mu xam ne baayam ji nekkul ku bon bëggalu bon lu baax la ko bëggal ndax même bu ko boroomam digalee itam am na respect ci Ismaïl bu toll na ñëw na di ko laaj ñëw na di waxtaan ak moom waaye wax ji ko Ismaïla wax na ko yaa abati faal ma tu'mar defal liñ la sant dañ ciy déggee tamit ne Ismaïla comprendre na Ibrahim lii muy def fan la ko teg loolu kon tamit dañ ciy déggee ne éducateur léeg-léeg baax na ki ngay yar nga koy wax li nga koy tere wala nga ko koy digal lan moo tax pour mu comprendre ko ndax léeg ñàkk comprendre jëf bi ngay def li tax nga koy def dina tax nit ki du ko mën a accepter mais bu fekkee comprendre na li tax nga koy def da gën a yomb ci moom accepter ko ndax def na ko defal liñ la sant kon xam na ne yàlla moo ko ko sant loolu moo tax kon compréhension boobu nekk lu am am solo mu daal di ci teg ne sa tajidu nii insha allah min assabirin di nga ma fekk ma bokk insha allah mu nekk lu am solo mooy ne nit ki looy wax ci loo xam ne day ñëw ci sa mbir del wax bu soobee yàlla incha allah résultat bu baax rek nga ciy am ndax yàlla moom moo la ciy dimbali yàlla moom moo la ciy taxawu mais bul doyloo sa xel bul doyloo sa kàttanu bopp wala sa fitu bopp ba tax nga yaakaar ne yowum sa bopp kese doy na ne di nga mën a def loolu waaye Ismaïl dafa dimbali koo yàlla daf lañu tuddee istisna moo tax borom xam mi wax ne dëggu bi mu dëggu ak dëggal li mu waxoon baayam li ko ci gën a dimbali bokk na ci incha allah jooju mu waxoon beneen bi ci des ci li ko dimbaliwaat mooy mina saabirina ji mu wax di nga ma bokk ci muñkat yi te waxul ne di nga ma di ma fekk may muñ waaye di ma fekk ma bokk ci muñkat yi mu boole boppam ci ñi way muñkat yi mooy daa utal boppam ay àndandoo àndandoo dalay dimbali àndandoo da lay dëgëral ndax yàlla dafa bëgg mbooloo mbooloo barke la kon dafa ut ay àndandoo ci muñ gi ba mu ko defee ci la ko yàlla dëgëral mu daal di mën a muñ léegi bi nga xamante ni Ismaïl nangu na ndogolu borom bi ci li yàlla digal Ibrahim mu nekk ndigal loo xam ne lu diis la waaye Ibrahim nangu ko li muy diis diis ndax xam na ki ko ko sant te xam ne itam lu mu am ci lu baax kookoo ko jox te kooku du ko bëgg lenn loo xam ne lu bon la. yaqin boobu rek bu ko nit ki amee ak gis-gis boobu bu ko nit ki amee ci yàlla dina yomb ci moom lu ko yàlla sant lu mu rëy rëy ci bakkanam mu nangu ko loolu rek doy na te noonu la meloon. ndax Ibrahim amatuloon lu muy sikki sàkk ci digganteem ak borom ndax yàlla moo ko wanoon mbooti asamaan ak suuf tegtal yi fi nekk yi wane màggaayu yàlla mu mujjoon nekk koo xam dafa am yaqiin wa kadalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa li yakuna min al muqinin naka noonu tamit fële bi ko yàlla waxee bi waxee ne rabbi arini kayfa tuhyil mawta yàlla def na ko awalam tu'min qaala bala walakin li yatma inna qalbi ba muy ñaan yàlla yàlla wan ko nu muy dekkalee lu mu lu faatu bi ko yàlla ne mu ndax danga am looy sikki sàkka looy dengi dengi ci loolu daf na déet damaa bëgg sama xol gën a dal ndax xam ak gis bokkul li ma xam aw ma ci lu may sikki sàkk waaye damaa bëgg a gis da xam ne tuddee ilmul yaqin ak aynul yaqin moom aynul yaqin la bëggoon gis léegi bi nga xamante ni ñoom ñaar kon nangu nañ yàlla ne falamma aslama mooy bi nga xamante ni nangu nañ dogalu yàlla boobu ba war a jublu nag ci faat gi mu yóbbu ko ca man xar ca mina ca boru màkka war ko fa tër rendi ko dañ ne bi mu koy rendi ci li nga xamante ni mu ngi ci tafasiru salaf Ismaïl daf ko wax ne ko na ko dëpp ndax mu bañ a jàkkaarloog kanamam di ko yërëm moom itam mu bañ a gis jàkkaarloog baayam buy tudd yàlla di rey loolu tiital ko ba tax mu mën a dellu ginnaaw ci lañ wax ne wa tallahu lil jabin tallahu lil jabin mooy akabbahu ala wajhihi ñenn ci borom koo xam ne ku mel ne Abdallah ibn Abbas dañ doon wax ne daf koo dëpp dëpp kanamam nga xam nga ne position boobu pour rend ci dina xaw a jafe allahuma dul nga jël paaka bi jaarale ko ci suuf dana xaw a jafe waaye loolu na ko yàlla waxee falamma aslama wa tallahu lil jabin mu daal di koy dëpp yenn ci borom xam wax ne wa tallahu lil jabin daf ko daal di tëral tëral ko ci wetu càmmoñam jubal jubal ko li nga xamante ni moom mooy xibla waaye mbir mi foofu la yem ren di jotul am ndax ñenn ci borom xam ne dañuy wax ne isma ibrahim jot naa dawal paaka bi ci baatu ismail yàlla def ko mu nekk weñ mu nekk përëm boo xamante ni paaka bi mënu koo dagg ñenn ñi dafa dawal paaka bi yaakaar ne rendi na ismail fekk ne jibril wutu na ko ba rocc ismail dugal fa am xar mu rendi xar mi waaye li wér mooy ne laata muy rey la ko yàlla subhanahu wa taala woo xamal ko ne ko dëggal na li nga xamante ni moo nekkoon ci digganteem ak boroomam ñu daal di koy jox xar gàtt boo xamante ni bi moom la dem jël ko daal di koy rey ci place Ibrahima Ismaïl moo tax yàlla ne wanaa day naahu ne nañ waaw jooju muq xama la ndax jawaabu lammaa la mooy naaday day naahu an yaa Ibrahim bi nga xamante ni def nañ loolu ba jublu ci dara desul lu dul mu rende ko te yàlla tax yàlla daal di koy woo ne ko xad saddaqta ruya yow Ibrahim li nga gis te sa borom wan la ko ne la na ko def dëggal nga ko matal nga ko moo tax yàlla waxoon fële ne wa Ibrahim wax fa mooy Ibrahim moom moo matal li nga xamante ne mooy engagement bi ñu jëloon digganteem ak boroomam kon foofu la Ibrahim dëggalee xulla gi nga xam ne moo nekkoon digganteem ak yàlla mooy xaritoo gi mu xaritoo woon ak yàlla foofu ñu fay jàngee ne xaritoo ak yàlla ndakate yombul xaritoo ak yàlla marchandise bu cher la. ndax ku ko woote woo ne da bëgg yàlla xaritoo ak yàlla rek yàlla nattu la moo tax loolu Abdullah ibn Mas'ud waxoon fële ne ay nit dañ daan wax ne dañoo bëgg yàlla yàlla ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum waxal gaa yooyu di wax ne bëgg nañ yàlla bu fekkee bëgg nañ yàlla bëgg yàlla gu dëggu nañ la topp yow muhammad ibn abdillah alayhi salatu wasalaam yàlla defal leen lu gën bëgg yàlla giñ bëgg yàlla te mooy yàlla bëgg leen kon bëgg yàlla ndakate du lu nit ki di woote woo waaye soo ko defee yàlla tegal la nattu boo xam ne ci ngay dëggalee sa bëgg yàlla googu nattu Ibrahim mooy yàlla digal ko nekkoon ko na rey doomam jooju nga xamante ne bi moom mooy Ismaayil nga gis cër boobu yàlla subhaanahu wa taala jox Ibrahim ci daal di bàyyiloo ko rey ja loolu la ñu tuddee an nas qabla tamakkun min al fi'l mooy yàlla na sax xal na jëf ba mu ko santoon ne ko na ko def fekk ne sax jotu koo def yàlla santoon na ko laata mu koy def yàlla na ko bàyyi am na rek lu yàlla bëggoon Ibrahim prouvé ko Ibrahim prouvé ko na ko ci dogu gim dogu ci rey doomam te yàlla jaral ko ko yàlla subhanahu wa taala ne ko kon baax na dëggal nga li nga xamante ne bi moom nga gisoon sa digganteeg sa borom te yàlla santoon la ko Ismaila tamit dëggal na matal na sëkk kon doom ju baax ngi noonu doom juñ yarangoog doom joo xam ne du gàcceel bàyyam mukk ndax Ibrahim doon na am problème ak lu mu gëm gëm gëm yàlla ak lu mu dëgg dëggu ci digganteem ak boromam doon na am problème ci matal loolu ko yàlla sant bu fekkonte ni Ismaïl fekk fekk siwu ko ci problème dëgg la doon doon ci moom ndax boobaa kon force lay mujj jëfandikoo dootul jëfandikoo conviction te fii dafa convaincre Ismaïl waaye li tax mu mun koo convaincre mooy am na mbaax gu nekkoon ci Ismaïl ju tax mu mën a fekk ji baayam ci mbir mu rëy boobu nga xam ne naroon na koo def ci la ko yàlla joxe ne yàlla wax ne wa fadaynaahu bi dibhin azim ñu daal di koy wuutalal moom Ismaïl ci place am que ñu rey ko ñu rey fa ab ab rey ab rendi boo xamante ne bi bu màgg la loolu nag li ci gën a wér mooy ne am xar la am kuy la am kuy la nee nañ mu ñu jëlee ci aljanna boo xamante ni nekk na fa lu mat ñeent fukki at di dund ba màgg ba mat ñu indi ko moom la Ibrahim daal di rendi allahu alam yàlla moo xam ne yàlla subhanahu wa taala jox na ko gàtt boo xamante ni moom la rey ci place doomam jooju loolu tamit yenn ci borom xam wax nañu istinaas la mooy ab gendeeku la boo xam ne ab junj la boo xam ne dañ ciy li ñuy rey ci tabaski li ci gën mooy xar terewul nag dinañ tabaskee gëléem dinañ tabaskee nag dinañ tabaskee bëy waaye li gën a wér mooy xar moo gën bu dee nag la ak gëléem juróom-ñaari nit ñoo koy bokk mooy mënuñu koo weesu bu ko benn nit tabaskee baax na bu ko ñaar tabaskee baax na waaye juróom-ñaar duñ ci duñ ko weesu ñoom ñoo koy bokk yonent bi alayhi salaatu salaam ay gàtt ay xar la daan tabaskee waaye bu dee ci aj gi bu nit ki dee rey bu reyee gëléem ñenn ci borom wax nañ ne moo gën kon foofu noonu ci lañ ñu yoonalee bis booba ñu ci rendi di tuur deret di baaxantal jaayonte boobu nga xamante ni Ibrahim jaayonte woon na ko ak yàlla mu baax jamono ñu koy def ñu fàttaliku xew-xew bi ak li nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala santoon na ko Ibrahim ni mu diisee woon gën a diis fuuf li nga xam ne ñun moom la ñu sant ñu fàttalikuwaat ngëneelu yàlla subhanahu wa taala jëm ñu defal ñun xeetu lislaam ñuy tuur deret ji ngir dëggal suñu gëm giñ gëm yàlla mooy li mu waxoon ne walaakin yanaaluhu taqwa minkum muy ragal yàlla ji nga xam ne moo tax bu ñu ko santee ñu def ko ci xol bu sedd ci xol yu ubbeeku ngir jaamoo ko ko moom borom bi subhanahu wa taala ñuy fàttaliku waat loolu bu baax fàttaliku kon ngëneelu yàlla ci ñun xeetu lislaam ak mbaax gi nga xam ne yàlla defal nañu ko ndax bu neexoon yàlla mu nattoo ñun reyloo ñu suñu doom te bu boobaa itam gëm gi ñu ko gëm ak dëggu gi ñu war a dëggu suñu digganteeg moom dina waral ci ñun ñu def ko ñu daal di jël ay gàtt rey leen ngir jaamoo ko borom bi subhanahu wa taala xew-xew boobu nag xew-xew boo xam ne boo ko seetloo di nga gis ne ay njàng yu bari mu ngi ci bokk na ci li la ci ma ci jaaxal ci xew-xew bi mooy Ibrahima alayhi bi nga xamante ne ñaan na yàlla doom ba yàlla may ko doom mu dem ba ànd ak doom ji ba miinanteeg moom xale bi tàmbali di dëgër yàlla reyloo ko doom ji mu def li ko yàlla sant yàlla teggil ko santaane ba daal di koy reyloo ab gàtt mu rey ko loolu mu dëggal ci xaritoom ak yàlla ak cër bi nga xam ne am na ko ci yàlla waaye seetlul yawmal qiyaam bu nit ñi demee ci Ibrahim ne ko dañoo bëgg yàlla mi nga xam ne sab xarit la anta xalilullah anta xalilu rahman nga dem ñaanal ñu ko du ngir mu dugal nit ñi aljanna de ngir taxawaay bu metti bi nit ñi taxaw yàlla atte seen diggante atte jàmm ñi ba taxawaay bi jeex ndax nit ñi sonn nañ muy alqiyaamatul kubra shafaa boobu muy ramm googu nit ñi di ñaan dinañ dem ci Ibrahim nga xam ne mooy bàyyi yonant yi ñaan ko ngir mu dem defi ji loolu waaye Ibrahim li muy xaritoo xaritoog yàlla yëpp du am fitu dem di ñaan yàlla danaan leen boppam la tal ndax am na ñetti wax yu dul yu mu waxoon ci àdduna yoo xam ne dese naa dëppoog dëgg yoo xam ne xamul ndax yàlla dina ko ci xisaab am déet ci bis boobu moom fi mu ne nii loolu lay xalaat naka lay def ba mucc ci ba tax na ñemewul a dem ci yàlla di ko ñan te moom xaritub yàlla la boo xam yàlla moo feddali ab xaritoom bu mu xaritoog moom Ibrahim nga gis Ibrahim alayhi xam gi mu xam yàlla moo tax mu ragal yàlla loolu di wane ne nit lu mu gën a xam yàlla di ko gën a ragal innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla dëgg ci jaamam ni mooy ñi xam moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax ne ala inni alamukum billah wa axshaakum lillah doon na wax ne maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla nga gis ne kon conséquence résultat la ci xam yàlla mooy nit du xam yàlla mukk di ñeme yàlla saabu nit di naagu ci yàlla rek ak di yëkkati boppam ci yàlla rek xamal ne xamul yàlla wa illa nit ñu baax ñi fi jàlloon di yonent yi ku la ci gën a xam yàlla gën la ko ragal xool Ayub bi nga xamante ne yàlla teg na ko feebar bu metti ba yaram ba yàqu nit ñi daw ko xamul fu mu jëm ñemewul ñaan yàlla ñemew koo ñaan daf koo tawat daf na ko yàlla nangam dal na ma feebar naa sonn naa ci feebar bi loolu rek la ko wax borom koo xamante ne li tax defal ma ak wér ragal yàlla ragal ak màggal yàlla moo nekkoon ci moom ba tax ñemewul sax ñaan yàlla mu teggal ko feebar bi mais def na ko yàlla man day feebar naa te sax loola sax ba mu demee ba ca njombaxtal la ba ñàkk pexe ba ñàkk pexe la ko soog a def ndax rek bañ mu mel ne yàlla da koy teg nattu muy jooytu ñàkk ànd ci li ko yàlla teg foofu lañ àggoon ñoom ci xam yàlla ak ci ragal yàlla moo tax kon dina la jaaxal nga gis léegi phénomène bi am ci yaakaar ne àgg ci yàlla fenn fi mooy màgg ak am sañ-sañ ci mbiru yàlla am sañ-sañ ci mbiru yàlla koo gis mu am fit dëgër fit ci mbiru yàlla ak naagu ci mbiru yàlla xamal ne xamul yàlla xatta yonent bi alayhi salatu wasalaam boo xoolee ni ko yàlla di yemalee ci alquran ak cër bi ko yàlla jox laysa laka min al amri shay aw yatuuba alayhim aw yuadibahum fa innahum zalimun afa allahu anka li ma adinta lahum wa hakada yonent bi alayhi salatu wasalaam bu yàlla di wax ak moom ci quran di ko delloowaat ci place di ko delloowaat ci cëram muy nangu loolu di toroxlu di wàcce boppam loolu yëpp day delluwaat ci xam gu mu xam yàlla alayhi salatu wasalaam kon nit bu fekkee gis nga gaawu yàlla yi bu fekkee gis nga ci ñoom mbaax gis nga ci ñoom ay xar baax ak kéemaan gu ñuy wax ci ñoom dafa war a feeñaat ci ragal yàlla dafa war a feeñaat ci nit ki jàpp ne tekkiwul dara ca yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam benn bis nit wax na ko ne ko macha allah wa bu soobee yàlla soob la def ne ko ajaalta ni lillahi dan ndax danga may jël di ma gam-gamle ak yàlla di ma bokkaale ak yàlla bal macha allah waxda waxal ne bu soobee yàlla rek waaye bul ma ci boole man alayhi salaatu wasalaam kon njàng moom war nañ koo delloo si waat bu ñu seetloo ibrahima alayhi salaam ak tolluwaay bi mu toll ci yàlla ak cër bi ko yàlla jox ci moom loolu yëpp terewul mu ragal yàlla terewul mu wàcce boppam ci yàlla ba yowmal qiyaama bu ñuy ñëw di ko ñaan ngir mu dem ñaan yàlla yàlla atte jaan ñi ñemewul dem di ñaan yàlla subhanahu wa taala moo tax kon nañu delloowaat yàlla dayoom dëgg-dëgg xam kan mooy yàlla ak màggaayam subhanahu wa taala lii ñuy def nii di ci baaxantal xew-xew bi nga xamante ne bi mooy tabaski buñ koy def mu bañ a nekk aada boo xam ne dafay répété wu nekk benn mbir boo xamante ni routine lay doon waaye ñu fàttaliku xew-xew bi fi mu jóge ak fi mu jaar ba ci xeetu lislaam ñu koy baaxantalaat di ko defaat mooy lu xew diggante bàyyi ak doom am enseignement yu bari yoo xamante ni mën nañ ko cee tiré nit koo xamante ni ku jeex ci yàlla la subhanahu wa taala ba lu ko yàlla subhanahu wa taala sant amul ci wàllu àdduna lu cher ci bëtam foor ci moom ba mën a dox digganteem ak mu def li ko yàlla sant ndax lépp lu la yàlla jox ci mbiru àdduna bagage wu àdduna la rek boo xamante ni da dem bàyyi ko fi wala moom mu dem bàyyi la kon warta dox digganteeg jubluwaay bu màgg bi te mooy sa borom subhanahu wa taala moo tax Ibrahim kon doomam nekkuloon gàllankoor ci mu topp yàlla te xam nañ ne doom ak alal gàllankoor la innama amwaalukum awlaadukum fitna la yàlla waxoon mooy gàllankoor gi mu lay gàllankoor sa digganteeg sa borom waaye Ibrahima àggoon na ci yàlla subhanahu wa taala foo xam ni doom mënatuloon dox digganteem ak boromam subhanahu wa taala au contraire sax doom jooju ndimbal la ci gën a jaamu yàlla ndax ba mu waxee doom ji ne ko day def li ko yàlla sant doom ji ne ko acca demal ma fekk la ci ñu jàngee ci tamit yar nu mu amee solo ci njaboot jamono ji ñu toll nga xam ne jamonoy droit la nga gis ne Ibrahim am na lu mu def ci Ismaïl lu tax bi xew-xew bi amee Ismaïl wane ci njàmbaar gi nga xamante ni wane wane na ko ci loolu nekk lu ama am solo itam beneen bi ci des mooy tawxiid muy wéetal yàlla subhanahu wa taala diina Ibrahim lépp wéetal yàlla subhaanahu wa taala la màggal yàlla subhaanahu wa taala soril ko lépp loo xamante ni bokkaale la ku xam yàlla dëgg doo jël lenn ci àq yàlla yi di ko jëmale ci mbindeef ñàkk xam yàlla rek ak yàlla ñàkk màgg ci xolu jaam mooy tax jaam di màgg ci xolu nit ba kooko di ko jël di ko méngale ak yàlla wala di jël lenn ci cëri yàlla yi subhaanahu wa di ko ko jox lii ñuy jublu di tabaski ji deret jiñ ci tuur ngir màggalee ko yàlla la ak ngir jaamoo ko yàlla subhanahu wa taala nañ ko sellal te yàlla tax ñu tudd ci turu yàlla mu nekk xeet feet boo xamante ni suñu feet la di feetu mbégte boo xam ne yonente bi alayhi salatu wasallam dafa waxoon ne liñ ciy njëkk a def mooy bu ñu xëyee dañuy julli daal di jaamu yàlla def ay takbiraat takbiraat yi mën nañ ko def ci weer wi yëpp bu fekkee weer wi teru na waaye dañ koy gën a taamu bu demee ba ci guddi tabaski gi bu ñu nee suba la ci bis bi tamit nit ki di def takbiraat yooyu dem julli ji bu ñu jullee ba noppi nit ki ñëw daal di rey gàttam daal ci xewlu wàllu gàtt yooyu nag du ñàkk xëy na sama mbubeen bi dina soxla tuuti ay quelques orientation <laughs> ak ay conseils muy wàllu gàtt yi léegi moom coow li bëri na ci lool li ci ëpp solo mooy jaamu yàlla la nit ki bu ko yàlla mën loo loowee mu def ko même bu dee sax mu ngi dund ak waajuram nekk ci kër papaam par exemple yore njabootam wala muy liggéey di daan dooleem mën a génne ci ñaqam lu mu jëndee xar rey na da ko def ndax jaamu yàlla la borom kër bu rayee rayal na njabootam léeg-léeg këru famille yi nga xamante ni xale yi dañuy màgg takk ay soxna indiwaat leen ci kër gi di participer ci dund kër gi ñoom itam ay borom yi njaboot lañ ndax seen papa naam moo leen njaboote waaye ñoom ñu ay borom yi njaboot lañ ku ko ci mën ci ñoom nga jënd xar rey rey rayal sa bopp rayal sa njaboot ndax xëy na heure boobu waroon na laa fekk nga ber sa kër waaye sa biir kër bàyyi nga nekk ba léegi kon jaamu yàlla la soxna sax soxna soo xam ne sax mi ngi nekk ci suufu jëkkëram bu ko neexee mu jënd xaram daal di rey bu yemee ci xaru borom këram baax na gàtt yi tamit liñ ciy xool mooy mu mat mat gi mooy mu am at ak lu ko ëpp bu fekkee jafe na ci nit ki bu at bi manqué tamit te gënuta tuuti 6 mois ba léegi baax na mucc ci wàllu yaramam ci ayib bi nekk ne mi ngi dox dox boo xam ne bu normal la bañ di soox soox boo xam ne soox bu fës la ba ci tamit baax bañ a bënn wala mu euh, tuuru naka noonu itam bañ a feebar ba loof wala mu màgget ba wow yooyu yëpp bañ cee am mais mu nekk xar boo xam ne da mat ci jëmmam bu ko defee yenn dagg-dagg yeeg yenn manqué manqué yu ndaw yu tuuti yi dootul tere mu mën a tabaski donte mu muccoon ci moo gën bu ko nit ki rey mu tudd ci yàlla bañ yàkkamte ba tax mu fàttee tur way tudd yàlla léegi bu reyee ba xar mi sedd mu daal di defar loolu tamit conseil yi ñu ciy joxe mooy koo xamante ni mën nga am ku la jàppale ci defaral la sa xar moo gën ndax bari na jëngumaan yu mel ne man yoo xam ni tabaski bi day jot ñu jënd seen baako yu ñaw a ñaw ne ci xar mi lasar lasar lasar lasar ba ay une heure deux ñu ne ci xar mi bënn der bi xotti fu nañu xotti soo moytul di nga dagg dagg sa doom yàlla doon jàppale ku ne nga dagg loxoom man mi mës nañ ma ci gaañ gaañ bu metti ndax lu ko waral mooy man ak ay jëngumaan ñoo ca daan nekk kër ga wër xar mi ku ne jàpp ci da ngay gis xar moo xam lu mat fukki nit a koy wër gars yi ne ci ñii di xëcc fi daanaka dañ koy xolli dañuy xolli xar mi duñ ko fees léegi boo amee ku la mën a feesal sax même bu dee da koy neexal nga neexal ko ndax li ci nekk ci loolu conseil bi li tax mooy non seulement coono bi ak yàggaayu liggéey bi mais gaañu gaañu yu ci nekk nit ki moytandiku ko ndax tabaski bi tamit nit ñi duñ ci bàyyi xel mais paaka yu ñaw yi jënd di ko jëfandikoo te sa loxo day day niin tooy ak deret ji bu fekkee surtout tàmmaloo di ko manipuler mën nga cee gaañu léeg-léeg gaañu gaañu yu métti wala nga gaañ ci keneen surtout léeg-léeg ak jaas yi ñuy jël di dóor na di damm di dagg ay kéeg yooyu ñi ko tàmm mën ko mu nekk seen liggéey dañ koy def ak facile facilité alors ko yow bu nekkul loo xam ne tàmm nga ko mën nga ci gaañ wala nga gaañ ci nit ba tax na kon des fois ut ku la ci jàppale du ci yàq dara ndax itam liggéey bi tamit gën a gaaw bu ko defee gars yi teel a jublu ci lakk beeg yu mel noonu yooyu tamit bon liñ ciy wax mooy gàtt bi bu fekkee nit ki dafay lakk lakk lu baax la moytandiku lu garaal yi léegi surtout xëy na soxna yi ñuy def marinade yeeg jël beurre jàpp ko diw ko ci yàpp bi non seulement dafa am gras nga jëlaat ay beurre ak yooyu diw ko ci ba mu gën a niin daal di koy lakk loolu dugg ci biir yàpp bi nga jël ko di ko lekk doomu aadama dafa bëgg lu salé lu sucré ak lu gras loolu moom la industrie far kii bi agroalimentaire bi xam moo tax daanaka seen produit yi loolu rek lañ ciy def moo tax boo gisee baaxul loolu bokk na ci yu gras ak yu sale yooyu ñun bëgg nañ ko trop sénégalais yi si surtout léegi ak euh, lu bari ci ñun daanaka yëngatu dootuñ ko defati noonu dañoo xaw a sédentarisé wu dañuy toog ba tax na kon yàpp bi nit ki naam mën na cee lekk mais defarin bi ak lekkin bi tamit ñu xool ko bu baax mooy boo ko lakkee bàyyi ko ci taal bi ba nga xamante ni lu bari ci graisse gi siit na nga lekk ci loolu lu baax la yenn xeetu xar yi nga xam ne moom lañuy jënd léegi xewal ko mooy xar yu duuf yi moom tamit dese naa mucc ayib ndax naam baax na ci jëmm ji ni mu toll mais dañ leen di engraissé xar yi du ñu dox du def benn effort physique dañuy daanaka tëju atum lëmm ci benn néeg ñu leen di xont te duñ leen jox daanaka ngooñ xar normalement ay ngooñ ak ay ñax la war a lekk waaye léegi comme li ma doon wax ci industrie pharmaceutique bi dañuy jàpp xar yi di leen jox ay mboq ak ay ay ay ay bësi yu mel noonu lañ leen di jox pour bëgg ñu gaaw a am masse léeg-léeg sax dañuy jël ay ay vitamine di leen ko jox ay antibiotique ak lu ne ñu leen koy jox yooyu yëpp am yu muy def ci yàpp xar bi ak lu mu ciy bàyyi loo xam ne nit ki koy lekk ci moom lay dem mën koo indil ay problème yu bari ndax yàpp bu gras boobu nit ki bu ko lekkee bu duggee ci organisme am après ay problème lay doon lu bari la ci indi ci ay dis dis ak ay problème ba tax na kon jàpp xar yi nga xam ne ñoo daan jóge ci àll bi di ñëw waxuma sax xëy na yu wow yi nga xam ne dañuy dox ci naaj bi doo doxa doxa doxa dox ba wow koŋ waxuma yooyu waaye am na ci coggal yu baax yoo xamante naar yi daan nañ ko fi indi du ñu ràgg ràmm waaye tamit du ñu duuf lool yooyu noonu mën naa wax ne moom moo gën ci wàllu lekk ci wàllu lekk mais xar yi ñu xewal léegi dakaar fii jàpp leen engraissé leen a engraissé ba xar yi kenn xamul nuñ toll boo leen gisee ñu rafet noonu taxaw mais léeg-léeg ci wàllu wér-gu-yaram bi lu jar bàyyi xel la te itam nit moom wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka l'islam du la digal mukk ngay def loo xam ne tamit daf lay exposé ci ay danger bu njëkkoon nit ñi dañ daan lekk yàpp nu mu leen neexee parce que dañ daan dox moyen de transport yi développé gul woon trop ay climatiseur ak ventilo gi mel noonu amagul woon nit ñi dañ daan dox di def lu bëri ci effort physique moo tax lekk gi daan lekk daawu leen wàññi lu bëri mais léegi lu bari ci su li ñuy lekk li tax mu ñuy feebar mooy yaram bi du xam nu mu koy def ndax soxlawu ko doo am nu mu ko mën a lakkee yaram bi du ko mën a lakk ndax da ko nit ki da koy lekk toog ci canapem ventilo mi ngi ko tiim bu jógee soo moytul bu demee tëdd ci climatiseur lay taal bu duggee ci oto taal clim wa hakada léegi loolu moo tax kon mu jar def ndànk tuuti beneen bi ci des tamit ci wàllu tamit mooy tondiku yu gras yi ak yu sale yi comme ni ma ko doon waxee mais def ay togg yoo xam ne togg yu léger la bañ a vraiment jàpp togg bi sol ko solo solo solo duy ko duy duy boobu day mujj gras ba nga xam nit ki bu ci lekkee pour loolu rek yaramam évacuer ko problème lay doon mais xool yàpp bi jéem a xool xeetu toggin yu oyof yoo xam nit ki dina ko def mooy dondi ko diwlin ju bari ji ak saf-safal yu bari yi xëy na naam wàllu épices yi épices yu naturelles yi baax na ak ay légumes ak yooyu mais malheureusement ñu lu bari suñu légumes yi duñ ko lekk dañ ko fay bàyyi dégg nga topp yu yooyu rek ñoom xam naa abu xam na ci dara surtout mburu mi nga xamante ni bi moom la ñuy topp jël ko boole ko yàpp bi di lekk rek nga xam ne blé bi tamit ay wax a ngi ci am na ci ay chercheurs yoo xam ne soupçonné nañ ko ci wàllu favoriser diabète jëmmi blé bi ci boppam blé bi ñu jël xewal ko ci àdduna di ci ay mburoog yu bari am na ci ñoom ñu soupçonné ne am na rapport ak diabète ñu mu tasaarowee ci àdduna bi ndax sucre bi nga xamante ne daf koy def ci nit ki kon gën a teey ci yooyu def ci ndànk mooy su moytandiku tamit boisson yi ak jus yi nga xamante ni c'est trop sucré surtout jus yi nga xam dañ koy defar léegi defar lu mel ne ay euh, bisaab nga xam ne dafa am acidité léeg-léeg pour damm acidité boobu da ngay obligé def ci suukar bu baree baree baree bari lu koy waral mooy foor jëlaat ay essence encore essence ay saveur rek la ay produits chimiques la ñuy boole créer ay saveur yoo xamante ni nekkul lu naturel lépp c'est synthétisé lu synthétique la léegi nit ki jël ko di ko di naan bi ngay naan muy saf ananas naanuloo ananas lu saf ananas ngay naan lu saf ananas amalu la njëriñ da nax sa xel rek pour gëmloo xel bi ne li ngay naan neex na ndax saf saf na ananas mais du ananas kon loolu mu ngi mel ne yow mag gi yow yaay nax sa bopp waaw alors que mag du nax boppam dañ naan mag buy nax lu tàng <laughs> mag buy naan lu tàng suukar saa tax voilà léegi jus bi tamit gis nga ko essence yi ñu ciy sotti def ci àddunay suukar mën nañ ko def mu léger wàññi fooraay bi bu ko defee loo ci def ci suukar mu doy tàmm tamit xeetu suukar yi nga xamante ni moom lañ lu mel na suukar roux bi mooy suukar bu marron boobu nee nañ moom moo xaw a gën a tane tuuti ko bu weex bi bu cristallisé bi ñu tàmm tamit boobu pour gën a wàññi utilisation bi ñu utiliser suukar bi kon ala kulli xaal fan yi tabaski yi mi ngi noonu fan la yoo xam ne fan yi fête la mais léeg-léeg tamit ñu xoolaat tuuti wàllu consommation bi ak sax surconsommation bi mooy jënd ba jënd loo xam ne soxlawuñu ko soo moytu lu ci bëri encore ay tuuri ji moom moo ci am yoon te yaa ngi dëkk ak soo moytul ay nit ñu ñàkk wala am ay mbokk yu ñàkk yoo xam ne lu ci bëri ci loolu boo leen ko joxoon ñoom ñu mën koo jariñoo kon bañ a def lu ëpp ci yàq bañ a dugg ci wàllu puukare moytandiku tamit bàkkaar yeeg mooy yàlla yi ndax am na ci ñun ñoo xam ne bu xeet yu mel ni ay tabaskeek yooyu jotee seen xel li mu li mu dem mooy guddi dem ay boîte de nuit guddi dem seeti ci seen i coro nekk ay affaire caaxaan ak mooy yàlla ak yooyu rek ci lañ koy def ci xeet ci feet boo xamante ni yow feetu diine la sa diine moo la ko feetuloo sant la ci jaamu yàlla nga war koo jaamoo yàlla war a delloo sa xel ci yàlla war di tudd yàlla nga fàtte loolu yëpp yow dem di def loo xam ne ak mooy yàlla la loolu il faut que nit ki nekk ku inconscient dëgg pour àgg mën a àgg ci niveau boobu lan moo ñu ci yóbbu mooy ni ñuy gisee ñi nga xam ne duñu ay jullit jàppee ko seen i feet nga xam ne lépp wàllu caaxaan la wàllu caaxaan wàllu affaire àdduna ak yooyu rek la ak def lu la neex ñun itam dañ jël loolu ci ñoom toppandoo ko ci ñoom bu ñu amee suñuy feet yoo xam ne feetu diine la ñu jël caaxaan boobu daal di ko ciy dugal waaye tabaski du waxtu boo xam ne jullit bi war naa am jotu nekk di caaxaan dëggal ci sa njaboot luñ ci taamu la nit ki mën na koo def waaye lépp rek comme niñ ko waxee woon mu nekk loo xam nit ki da ci digg doomu ba yàq du ci am mooy yàlla du ci am waaye tamit loru wala lor sa njaboot du ci am ci façon consommation bi xam nañ koy consommer ndax ñun léegi fii phénomène bi feeñ mooy consommation bi dafa commencé jëm ci industrialisation loolu moom moo dal occidentaux yi seen yaram yi yàqu obésité bi sonal leen façon feebar bu nekk sonal leen ñu tamit léegi ci loolu lañ jëm ak euh, li ñu tuddee la grande surface yi nga xam ne moo commencé tas suñu dëkk bi naam yombalal nañ ñu wàllu consommation ci prix yi ak tamit ci accessibilité wu yenn produits yi nga xam ne bu njëkkoon yombul woon torop nga ci nga koy mën a am nga mën koo am waaye tamit beneen côté bi bi mooy yàq tamit suñu dundin bi ngi ci alimentation bu bu nga xamante ni boobu nga xam dañ ko transformé bu industriel boobu nga xamante ni tamit léegi moom lañ commencé jël di ko consommé moom tamit lu bare bëri lay indi ci ay loraange ci wàll wér-gi-yaram kon ñu bàyyi xel tamit ci loolu kon ala kulli xaal tabaski mi ngi noonu ñu bañ a fàtte di tudd yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñaan yàlla subhanahu wa taala liñ ciy def ci mbaax yàlla nangul ñ ko yàlla ko mu dellusiwaat ay ati ati at fekk ñu ci jàmm ak salaam ak sutura ak xéewal ñi ngi leen di nuyu di leen euh, ndokkeel ci julli gi di ndokkeel suñu mbokk bi nga xamante ne bi moom la ñuy àndal di Abou Salima Ahmad Mbuub la tudd mais Abou Salima la ko mbokk yëpp xamee mbuubeen la moo tax mu koy faral di tooñ ci euh, waxtaan bi ndax sama kal la nga xam naa ne tabaski bi moom moo gaa yi mel ne loo ween yëg gaa yu siise siise yi kontaan nañ trop kontaan nañ lool ndax li nga xamante ne mi ngi waaj a ñëw muy xéewalu ndawal yeeg yooyu waaye ñu ngi ñaan lépp rek yàlla def mu nekk xéewal te yàlla nangul ñu ko ñu ngi koy gërëm bu baax ndax liggéey bi moom moo ci taxaw donte xëy na du ngeen ko gis ndax du feeñ ñun na yàlla nattoo ne ñooy toog seen kanam di wax waaye ñun ñëpp ñoo bokk di ko def yàlla na yàlla subhanahu wa taala taxawu wasalaamualeykum wa di yëngatu ci médecine islamique ak bu traditionnel ñoo leen doon baaxe seen émission seetlu alqur'an. maa di alqur'an géej naa ku ñëw danga sama yiw day baawaan ku ma seetlu gis man yàlla mooy ki ma waax ma sa sama lépp nadduma la xam leen ne may Qur'aan leer laa gu ñëw ngir ku ma jàpp dootoo wee